Yewwi Askan Wi moom mi nga xam dafa bëggoon rek indi ay coppite waaye itam ci xel yi ak ci jëfandiku yi ba tax na kat yaakaar na nañ daal loolee dana daal di am ginnaaw ba mu amee ndam lu yaatu ci élection législative 2022 Sénégal nag bu ñu defuloon ndànk rek tuuti rek moo taxoon cohabitation bi gën a am waaye tam majorité présidentielle daal dafa mujjee rek daal di yaa génn ca guuta ga mu nekkoon ndax Pape Diop mi nga xam ne dafa leen gën a dooleel kon tamit mu nekk daal acte bu nga xam tax na ka fi nekkoon njiitu bokk moomeel bu Dakaaru moom dafa fësal leen ne kat bokkam ci nga xam ne kat mooy Macky Sall waaye intercoalition Yewwi Askan Wi ak coalition wallu ñoom daanu fësal seen i féewaloo wala sax seen ñàkk juboo ginnaaw ba doon installé parlement bi intercoalition boobu daal dafa jege woon loolu daal di occupé sax fauteuil bi nga xam ne moom la jamono ji ki nga xam ne mooy président assemblée nationale bi nekk waaye itam la gën a yomb rek mooy ñoom sax dañu daal koy romb waaye jàppante yi nga xam ne kat moo nekk seen biir ak mbiicoo mbaalo gi tax na daal ba passé fekk taxaw ku ci nekk daal jël nii kenn jël yoon ba ca des ba tax na contentieux bi nga xam ne métti na lool daanaka ay weer ngi nii muy wëy loolee tax na rek bëgg na néewal dool yeewi askan wi te mu ñu fàtte ne non inscrits yi nga xam ne ñoom ta dana ànd ak fiiraange gu nga xam ne daal bëgg na seen place kenn du ko laal kon tamit li nga xam ne moo xew ci ubbiteg hémicycle bi ci mu atum 2023 loolee daal gis na ne kat ay jàppante ak wuute gis-gis tax na ci diggante Yewwi Askan ak taxaw Sénégal mu daal di am féewaloo kon tamit wuute gi nga xam ne moo am ci seen biir tax na ba ñu bëree bëri ak di ngawti ngawtee bu fekkee dañoo jël dogal waa taxaw bokk ci dialogue national bi nga xam ne moom la Macky Sall woote woon ñoom foog ñu assumer seen responsabilité waaye tamit daal di koy assumer ba mu jeex tàkk kon tamit ñu bëri yaakaar ni kat ñii ñoom dañuy liggéeyal waa Bennoo waa taxu nee nañu mukk waaye tam dax gu nu dàq député taxaw ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi loolu jeexital gu bon la bu nga xam ne day tax rek maanaam ñàkk yëgante ak ñàkk a wegante kon tas gi nga xam ne Yewwi Askan Wi tas na ko loole daal day fësal ne ci biir ku jég gi ak lépp lu mën mënti xew ñoom mënuñoo jubóo fenn nguur gi nag di ci profité ba tax na daal ma ngay fexe bay néewal doole ñi nga xam ñooy ku jég yi jaarale ko rek ci seen i ponkal ba nga xam ne kat ñoo leen di jiite kon éclatement bi nag moom ñoom dañuy taxawe ne di ko tàccu yaakaar ni kat kon ñu gis ne mu lu njëkk ci taarixu Sénégal ay njiitu parti yi nga xam ne daal dañoo bokk ci mouvance de l'opposition ñoom ñu leen di yaa diir kon Yewwi Askan Wi ak yenn coalition yoo xam ñu bokk ci yaa kujje gi ñoom fokk ñu xooli nag ne responsable du ñuy njàkk ñoom ñooy njàkk kenn du daal di inventé li nga xam mooy politique doolu opposition mi ngi daal di fexe daal moo ñu bokk waaye ki kenn doon féewale ndax gis ne yoon bi mett na lool am nay ndëgg sa waaye ak lu mënti xew gis ne kat ñoom seen bopp ñoo war a joxante xam fa ñu jëm bokk gis-gis